boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu kilifa yépp di leen ziyaara di yëkkati kàddu gi ci ndigalul kilifa yi ngir ci këru asaka yi nga xam ne moo tax mbokk yi daje fi te lépp tegu ci ndigalul mawlaana cheikh muhammadunil muntaqa xafizahu llahu taala wa raa mi jox ndigal waa tuubaa ca kanam ngir ñu taxawal kër gi saytu ko ndax solo si mu am te sëriñ cheikh sidi muxtaar ka wax na léegi wàccuwaay wi asaka am ci lislaam kon di ponk ci ponk lislaam yi muy loo xam ne kon ab jullit nu ko ñàkk ni ñu amee ay jàkk ak i jumaa yu ñu jullee am ay kuréel yu taxaw nit ñi dem màkk ak a dikk bu ramadan dikkee ñu koy taxaw di ko saytu noonu la aj màkk it la la asaka it war a amee ay taxawaay dëgg la nit ñaa ngi koy def walla boog ñu bari ci ñoom seen kem kàttan waaye da di jaamu yàlla goo xam ne du nu la neex nga koy defee yàlla mi moom jaam ñi moo santaane ñu génne asaka moo wax niñ koy génnee moo wax kañ lañ koy génnee moo wax buñ ko génnee nuñ koy def te loolu lu ci nit wàcc rek farata ji teggi googu bala laa farata ji teggi ko nga sàmmatal sàrt yi kon muy lu am solo loo xam ne kon kër goo xam ne day fas yéene dimbale jullit ñi ci ñi asaka ñépp ñu fexe bañ xam ne asaka war na leen ndax du ñëpp la war ñu fexe ba ñu xam ne ñii la asaka bul asaka waree gi ñu xam kañ nga ko war a génne boo koy génnee noo koy génnee boo ko génne ba noppi noo koy def kuréel gi ci loolu la fas yéene jàppalante ak jullit yëpp nag euh, mbooloo la moo xam ne it dañ ko tënk ci ñetti kuréel yoo xam ne ñoo saytu liggéey bi kuréel gu mag goo xam ne xalaat yi doxal liggéey bi ci ñoom lay bàyyi ko ay kilifa tàmbalee ci ndaw yi xalif général de Mouride ak kilifa ci yoon wi ay borom xam-xam ay opérateur économique ay góor ak jigéen ñëpp ñoo xam ne seen xam-xam jëm na ci wàll googu danañ ne ci biir kuréel googa di teg seeni xalaat yoo xam ne ci la liggéey bi doxee loolu it di lu am solo ndax liggéey bi moo ko laaj amit geneen kuréel goo xam ne mooy yoonal liggéey bi ndax mbirum jaamu yàlla la lu yéene rafet rafet lu xalaat jub jub te dëppoo wute ni ku yàlla bëggee du am njariñ kon kuréel googu nga xam moom la Serigne Salih Mbacké Mortada jiite liggéeyam mooy di xool liggéey bi fexe ba lépp di tegu ci yoon ni ko lislaam santaane nañ ko génnee noonu fi lislaam wax ne fa lañ ko war a joxee ñu koy joxe foofu kon incha allahu taala niñ fas a doxe mooy fu asaka war a génn wala fu mu war a dem danañ fexe mu génn fa dem foofu lislaam lépp da ko rëdd mu leer jumtuwaay yi taxit ñu mën a génne asaka kuréel gi dana fas yéene taxaw ba yépp am masaayil yi lëj yi nga xam ne ba fu mu ne nii soxla nañ ci ay leeral ba tey jii waxtu jot nit di la wax ne la mbir sàngam ñaata moo cay nisaab kuréel gi fas na yéen yooyu yëpp mu taxaw bu indi ci lu leer nañ yant alal yi nga xam ne wuute da ci am asaka war na cee waru ci ñu fexe ci indi taxawaayu leer nañ ba dara dootu lënt ku asaka war dana xam ne asaka war na ko danañ fexe ba mu xam ne nangam la war a génne liggéey ba ca war lépp it buñ ko waree joxe nañ ko war a joxe ñu sàmmonteeg moom boo gisee mu taxaw bokk na ci dimbale nit ñi ndax asaka sëriñ bi dañoo jàngaloon nañu bokk na ci ay tegginam ñett boo koy génn na ci sa xel dal na ci sa xol sedd du ay alamaan yu lay teg waaye ndigalu yàlla mi la xéewalal moo ne la compal ci li ma la jox jox sa moroomu jàpp boo koy génn yëg-yëg boobu nga war ko am xam ne yàlla ma noon na laa boole ci ñiy jox asaka waaye boolewula ci kon yow da ànd ak xol bu sedd ak sant yàlla nee na it buñ koy génnee nanga ko génne ci li gën ci sa alal loolu it kër gi rek jàppale nit ñi ba bu ñu génn asaka fexe ba génne la gën boo koy génn it na ko suturaal lu mu gën a suturlu wu moo gën moo tax dañuy sopp nit ki buy génn asaka mu wut ko ca wuutu bañ koo génneel boppam kon kër gi dañuy jàpp ne naayib la ci ñi war a joxe asaka mu wuutu leen ci joxeel leen asaka ni ko lislaam santaane ndax ñu mucc ci gistal mi nga xam ne sëriñ bi nee na day yàq diine kon loolu bokk na ci njëriñam kon kuréel googu nga xam ne mooy yoonal liggéey bi fexe ba lépp tegu ci yoon moom day teg bëtam ci liggéey bi lépp lu war a def la ci lislaam bëgg na mu ko bëggee dana fexe ba mu leerle du ca yam waaye dana sol di joxe ay bind di jàngale di waare di yeete fu ñu war a dem ñu ñu war a jokkool danañ jokkook ñoom ngir xamal leen solos asaka ak li ci aju ci ay njariñ ba ñi ko xamutoon xam ko ñi ci sawarutoon sawar ci ñi ko daawul génn ñëpp di ko génne ndax aw yiwu la bokk na ci sëriñ bi wax na ko léegi sëriñ si Muxtaar ka bokk na ci loru yuy dal am réew muy bekkoor te bokk na ci li koy waral ñàkk génne asaka cim réew kon saa bu ñu ko sàmmee jox ko axam yàlla mën nañu dimbale ñi ko war a génn ñëpp di ko génne ndax bare nañu asakowar te génnewuñ ko wala nañ ko génne du nii gis nañ ba tey ay nit ñu war a génne xaalis dem jënde ko aw ñam wala leneen di ko seddale jàpp nga ne yaa ngi def lu am njariñ te fekk boo taaraaroon mbir mi da nga xam ne la nga def yoon sant lu ko te jëfi jaamu yàlla nungu làmbutu làmbatu deme xel dañuy bëgg nga demee ci ak ay tex yu leer yoo xam ne nañ la ko sante kon kër googu loolu mooy doon liggéeyam fas yéenee jàppalante ak jullit yi ci ñu génne asaka ci nañ ko war a génnee di ko joxe nañ ko war a joxe kon na xel ni ñëpp daal ci ne it duñ jël jël alal mukk barab di ko yóbbu foo xam ne ñu ko aajowoo njàng fa ñu di ko toxal feneen xam nañ baax ne am na ci alal asaka yoo xam ne nanguwu toxal loolu lépp kuréel gi dana ko bàyyi xel ba fenn fu nekk alal ju fa jóge te war faa dem foofu lay demaat loolu it ñu ngi ko bàyyi ñu ngi ci bàyyi loo xel mbokk yi amaat nag geneen kuréel goo xam ne moo yor liggéey bi moo yor liggéey bi moom loolu waa Touba ca kanam ñoo ko yore ndax ñoom la sëriñ bi dégg liggéey bi ay acharian moom ay boroomi xam-xam lañ yuy jàppalanteeg ñoom di leen teete di leen saytul liggéey bi ba dara bañ ca wuuteeg lislaam lépp di dëppoog lislaam ci nam gën a mate ndax Sëriñ Tuubaa lépp luñ ko defal lam ca soxla mooy lu dëppoog diine diine ji gën a mat ji gën a rafet ji gën a jaadu loolu lay taxaw waaye jëmmi Touba ca kanam nag ñooy saytu liggéey bi kon kuréel gi yor liggéey bi ñooñu ñoo war a dajale asaka yi ginnaaw bu ñu leen leeralee yan waxtu la ñu war dajale asaka ndax ci lislaam asaka am nay waxtu xeeti alal ju ne nit ku ne am nga waxtu woo am loolu lépp nag kuréel gi dana dana ci taxaw joxe ci xalaat yi war a joxe bu ko defee ñi yor liggéey bi jël asaka yooyu bu séddale ko jotee it ñu wax leen yoon wi ñu war a jaar ñu jaar ca yoon woo séddale ko fa yu ci nekk tënk nañ lim lim ya ca war a dem ñañ war a àndal ngir ñu mën a e, sottal liggéey bi bàyyi nañ ci xel bu baax baax it fi jamono toll ba ñi ci war a ñi ko war a seq ñëpp dara ne ci biir kuréel googu lim léegi laaj ci ñuy contrôler lim laaj ci ñuy ay gëstu waxoon naa sànq ci biir ay sharia bi nga xam ne moo yor yoonal gi bokk na ci liggéeyam yenn masaayil yi nga xam ne dafa dese leer wala day lëj wala ay gëstu yu yees bu amoon tey ñu war caa xam àtte bi lislaam ñu fexe ba am ca lu leer nag ñi ci tegu ci xam-xam ba nga xam ne ni ku laaj teete ñu ma laa tontu na ko noonu dana am kërug tontu ay laaj yu jëm ci asak nga xam ne fu waaye amati ab laaj loo soxlaati boo ko yónnee ci kër gi incha allahu taala dana ton tontu yoo xam ne mbooloo koy séq gëstu ko ba génn ca loo xam ne dana dal xelum ñëpp. li ñu def lépp nag ci nga mazhabu am malik bii nga xam ne moom la ñu sëriñ bi tënkoon ci lañ koy tënk suñ koy génn it lu leer lu ko jar mooy tax ñu génn ko waaye ci mazhab bi lay tënk kon ñu bàyyi xel loolu lépp baax loolu lépp kuréel gi incha allah moo koy saytu teg ko ci loxo yi nag xëy idaare bi nga xam ne moo ko war a doxal ànd ko mbooloo mi di saytu plan yi euh, budget yi ñu war a def di saytu it plan yi ñuy teg par at di ci liggéey lépp di tegu ci yoon lépp di jariñ ba incha allahu taala diir bu gàtt ñu yëg ne asakakat lii lislaam bëggoon ba tax mu santaane ñu di ko génne nit ñi yëg ko ndax nit ñaa koy génne waaye dafa mel ne jeexit ji feeñagut ndax buñ ko joxee akam dëgg-dëgg danañ dem ba lépp lu lislaam soxlaate mën na ko taxawee xam nañ ci taarixu lislaam ay barab yoo xam ne ay jàngukaay yu mag tey jii ba tey jii ñu ngi dox seen cosaan ay waqfu yi sëriñ si Muxtaar ko doon wax ànd ak i asaka ci lañ sukkandiku ay dongoy daara yoo xam ne ay foqoraa am ñu gàddu di leen jox asaka ngir ñu mën a toog jàng di leen jëndal téere ngir ñu mën a jàng ba seenum jàng sotti ñu doon ay borom xam-xam jëriñ réew lu ne tey mën nañoo fexe ba jàngukaay yépp tey nit ñi seen xel mën a dal ndax asaka ji dajee fu ñëw dolli ko ci yooyu yëpp dana ko mën a saafara loolu daal mooy li nga xam ne moom la këru asa yi bëgg a taxawee ànd ko ci ñetti kuréel yooyu muy majlis ala bi ak hay asharia ak al majlisul idaari yi nga xam ne ñooy seq liggéey bi fas yéene lépp jaar ci yoon te ko teg ci ndigalul sëñ bi nga xam ne nee na joxe na ci ndigal te mi ngi koy ànd ak ñun asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Oustaz Serigne Mbacké Abdourahmane ci xamle bu tënk boobu mu doon def ci kër asaka ci boppam nag ñu mën koo tënk rek ne ni mu ko waxee mooy ñetti xaaj ci la xaajaloo. benn bi nga xam ne moo yore lépp lu jëm ci saytu liggéey bi ak rëdd joxoñ yi nga xam ne ci lañuy jaar ak ñaareelu kuréel goo xam ne mooy hay'a shar'iyya bi nga xam ne lépp lu jëm ci liggéey bi moo koy yoonal ba mu dëppook lislaam ak ñetteelu kuréel gi nga xam ne nag loolu ñu tër ñoom ñoo koy doxal muy hay'a idaariya bi mu dolli ci it ne bi kër gi juddoo rek barab juddu na boo xam ne fépp fu jullit nekkati te am ab laaj bu jëm ci azaka kon mën nañoo wàcc mën na koo yónnee te danañ ko ci tontu ci anam gu leer kon ci loolu ba léegi rek ngir ñu wéyal mhm. dañuy yëkkati kàddu gi mhm. jox ko suñu wayjur suñu sëriñ sëriñ Salih Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Mourtada moom mi nga xam ne benn ci ñetti kuréel yooyu Oustaz Sëriñ Mbacke Abdourahmane doon wax ci ne ci la kër gi tënku muy li ñuy wax al hayatu shar'iyya muy kuréel gi nga xam ne mooy yoonal lépp lu jëm ci doxin wi sëriñ Salih mi moo ko jiite moo borom xam-xam yi mu ko àndal ak kilifa yi kon moom la ñuy jox kàddu gi sëriñ Saali sëriñ Murtada ci mu yëkkati kàddu ci loolu ñu doog a wéyal incha allahu taala boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bës fu ñu bind abone bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo